Euh, année 2019 2020 ñun ñëpp ñoo ko dundandoo année bu metti la won si wàllum njàng parce que dafa coïncider mu nekk si contexte bu doy waar muy contexte pandémie euh, ñu gis ko nag contexte bi tax ñu tëj école yëpp ba ñu tëjee école yi ñu dem ba si biir ñu ubbiwaat école yi xale yi nga xam dañu war a def euh, l' examen mooy classe entrant sixième CM2 classe troisième ak classe terminale bañ ko defee jàngalekat yi xar seen tànku tubay parents d'élève yi xar seen tànku tubéy élèves yi xar seen tànku tubéy euh, te loolu am na ay firnde yéen ñëpp gis ngeen fii condition yi jàngalekat yi demee si àll bi ak ñu si bari ñoo xam ni mbas bi daf leen laal ñu leen di joxoñ baaraam mais taxul jàngalekat yi dem euh, fekki communauté yi ba ñu demee nag fekki communauté yi euh, ñu fexe ba geste barrière yëpp protocole sanitaire bi mate si école yi ñu def si ay dispositif yoo xam ne dañuy am na ñoo xam ne dañuy dañuy wàññi classe yi yenn maîtres yi ñooy nekk si classe yi yenn saa yu ñu corrigé jox ko seen yeneen naataangoo ñu xool remédier ne leen remédier leen lii ñu jàpp si di accompagner xale yi également si groupe whatsapp yi di accompagner xale yi si e-learning di leen accompagner également si école à la maison mu am échange yu bari surtout si réseaux sociaux yi yàlla def nag ñu am si résultat yu xaw a tane yoo xam ne moo gën yii passé mais ce liko expliquer contrairement à ce ay affaireu tapalé am liko expliquer rek parce que également nous, buñu xass nit ñi euh, parce que wax si sax di a ni dafa may ni koy si da insulter intelligence professeur université yi ak professeur yi nga xamni ñom ñoo corriger yi nga xamni exercice yi nga donc nañu japp ni rek conditions yi réunir